ma jékki-jékki gisuma suma doom tuumal ko loo xam ne dafa rey ampoy du kat xamul ci dara dara la xamul man maa ko jur nampal ko suma ween bii boot ko ak suma ginnaaw ba mu màgg ci suma ginnaaw lu bon li ngeen yëpp xam nañu kuy ampoy booja lu dul yërëmu nit loolu mooy jikkoom waaye du du luñu ko tuumal ampoy dañ ko tuumal lii defu ko tey defu ko suba ñi ko def ñu ngi foofu nañu wutu ñooñu nañu enquête ampoy def ko xamul ne mu ngi am avancement ñi jàpp ko tëj ko ñi tuumal ko man mii yaayoom d'accord ma tey d'accord ma suba nañu génne suma doom ñu wutu ñi rey suma doom ñi ko jàpp xaw ma ñi ko jàpp de waaye nañ ko génne nañ ko génne jooy na sonn naa jooyatuma li may dunde yàlla rek moo xam li may dunde jabaram ji xale bu tuuti lu muy dunde yàlla rek moo xam dara bu ko jot dara bu mu ko jot dara bu mu ko xosi dara bu mu ko xosi de Umar Ampoy Booja Ampoy duñu ko siise Ampoy duñu yëngal waxam lan la xamul dara dara la xamul te ragaluma wax maa ngi man awma dara yoo xam nga man awma dara dégg nga journaliste yi yëpp xam nañu kañ mooy Bintu Biyaage kan mooy maire Lindiane yërëmu nit rek laa xam kon nag du ma jur lu bon luy rey man sax musuma xeex ba ma xosi nit surtout ma ma jur lu bon